waaw tey woote tey bii woote woote woote bu am solo la ndax tey mooy journée mondiale de l'environnement ah donc commune Ngor nag ñun dañu tànn ne duñu def sax journée dañuy def une semaine de l'environnement semaine boo xam ne day tàmbalee ci panel boo xam ne dañuy waxtaanee ci euh, géej gi ak njariñam démb mais surtout géej gi ak njariñam ak sunu ëllëg ba tax na tey moo taxu ñu daje fii invité fii ay ay borom xam-xam ñu daje fi war a waxtaanee loolu ndax euh, thème bi ñu jël dafay wane rek géej gi njariñ bi nga xam ne daf ñu ko amal ndax commune Ngor turam mu ngi ko jëlee ci village traditionnel Ngor bu xam ne moom village bi village yu nappkat la village yu lébu la waaye non seulement loolu suñu héritage culturel la historique mais aussi géej gi dafa amal njariñ loo xam ne suñu ëllëg la sànq wax naa fi ay xale yoo xam ne si fii la juddoo ñi xam ne dañu réussir ci wàllu sport xam ne ci ndoxu ci géeju ngor yi la jàngee lu mel ni fay tey ñu nekk ay ay référence sur le plan international lu mel ni surf également fi ngeen taxaw nii bokk na ci fi nga xam ne 2026 mooy mooy recevoir jeux olympiques yi bi nga xam ne moom laa cité sànq mu nekk actuel champion d'Afrique de surf fi la fii lañ ko initié fii la jàngee surf ba tey mën a teewal réew mi yëpp xale bi nga xam ne mooy teewal Sénégal euh, ci jeux olympiques euh, yi am na mooy am Paris tey ci wàllu canoë kayak tudd Combé Seck fii ci géej bi la jàngee fii fa la jàng canoë kayak ba tey mu mën a teewal euh, mu mën a teewal réew mi yëpp ba tax na tey moo tax ñu ne nag euh, woote tey bi dañuy rappeler loolu inciter nit ñi ñu xam ne géej gi am na njariñ démb waaye tey la gën a am njëriñ mais surtout euh, pour les générations à waaw au-delà benn bés ñun dañoo jàpp ne benn bés rek doyul ndax ngor li fi nekk ñu war ko def yëpp benn bés rek doyul ndax ñun jubluwuñu rek ci nettoyer rek dem dañoo bëgg non seulement yee nit ñi wax leen njariñ bi sensibiliser leen ci li nga xam ne waratuñ ko def mais également bu ñu paree nag ñu door di nettoyer après embellir une une journée ñu jàpp day ñu jël une semaine boo xam ne day am panel bi tey day am euh, le sept mu am sensibilisation ci commune bi yëpp dina am ñu wër di def sensibilisation am ñu dem ci école yi am ñu gise ak xale yi gis ngeen sànq a invité ay xale yu nekk préscolaire di def hymne national mais c'est surtout pour inviter leen wax leen lan mooy njariñ bi suñ ci jógee nag euh, le samedi ak le dimanche ñu war a dem nag ci terrain bi nettoyer ànd ci ak ñi ne ci commune bi nekk ay kilifa yëpp ay ambassadeur ay responsable chef d'entreprise mais ñu dëkk ci commune bi ñoom ñëpp ànd ci ak ñoom pour pour def ko. oui mécanisme yi nga xam ne ñun mettre nañ ko mettre nañ ko en place je pense que bi ci ëpp solo mooy déjà li ñu def tey mooy sensibilisation parce que nit ki buñ ko éduqué wul quels que soient les mécanismes yoo mettre en place aussi. pour mu def lu am jariñ dafay xaw a jafe donc pour ñun bi ëpp solo mooy nañu waajal nit ki ci boppam wax ko li mu nekkee li ci baax ak li ci baaxul ak li li li jaar a corriger maintenant les autres mécanismes qu'il faudra mettre en place c'est fexe ba mettre en place des équipements mettre en place des équipes fan yii ñu ngi doon def dotation en matériel on a offert à des jeunes des tricycles pour que ñoom ñu mën a assurer li nga xam ne day nekk ramassage ordures pour éviter nit ñi dem di ko sànni mais également on est en train de travailler avec le le collectif des restaurants des Almadies ñoom ñëpp lépp loo xam ne poubelle la bu mën a dem ci géej gi ñu bàyyi ko fi commune bi s'organise pour man jël ko mais également continuer à sensibiliser parce que pour ñu bi ëpp solo ñu war ko njëkk def mooy fexe ba def le travail sur l'humain après ñuy door dem ci ci yeneen yeneen waaw bi nekk Ngor mu nekk un canal à ciel ouvert c'était prévu pour jël juste les eaux pluviales jóge ci aéroport bi Yoff ba ñëw Ngor Mais on, on, a constaté depuis quelques années que ça prend les eaux usées pratiquement depuis Sacré-Cœur, Liberté, euh, Dayjar, Fofu, Djel, Wakam, ba ñëw Ngor donc eaux usées yëpp day sotteeku tey ci géej et malheureusement l' assainissement nekkul compétence transférée donc commune bi mënu ci def lu bëri loolu ci responsabilité wu état la ñu ciy profité di leen ñaan di ñaan état gouvernement bu bees bi notamment di leen ñaan ñu jàppalañ ci loolu notamment euh, chef de l' état li mu lancé le premier juin moo ne woon euh, set setal mais surtout ciblé ci caniveau yi ak yooyu donc ñu koy ñaan mu jàppale ñu ci ci loolu ndax tey géej bi am na potentiel bu rëy bu mu amal Ngor m Dakar amal na potentiel bu rëy bu mu amal réew mi donc lu mel ni jeux olympiques yi fii lañ koy def loolu yëfu yëfu réew la yëfu état la mais dañuy ragal ne kana canal euh, eaux usées bi continuer di sotteeku ci géej bi mën na jur ay feebar mais économiquement li nga xam ne géej gi mu ko doon permettre toute cette la région de Dakar dañuy loolu lépp naax saay euh, problème bu problème bu mag la du lu ndaw problème bu mag la commune Ngor mënu ko gérer boppam parce que eaux usées yi fay ñëw jégul Ngor rek sa sa part de de liberté Sacré-Cœur yooyu yëpp day dajaloo ñëw Ngor donc ñu ngi woo njiitum réew mi mu jàppale ñu ci loolu ñu ànd ci waxtaan ci xelaat ci wut ci ay pexe ba xam ne dootul gàllankoor géej gi mais dootul gàllankoor population yi